نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في سائر وباطنه وبالخبور وكن معيسنا من الوباء وكل ناس من السماء promotion bi nga xamante ni si moom la ñu féetale ñu nekk fi comme chef chantier bon ñu ngi toll ci avancement travaux yi fi mu nekk nii nii nii ci phase finale bi lan nekk bi nga xamante ni si ni liggéey nañ ko dañ ko doon liggéey ci condition yoo xamante ni si ni yu xaw na li ba tali bi nañ ko war a mën a daloo ci màggal gi ci njàmbaarul mbokki taalibe yi nga xamante ni si ni ñoom ñoo ci dugal seen i seen i wax dëgg yàlla fu mu nekk nii ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ba tax na lépp loo xamante ni si ni war nañ koo def ci tali def nañ ko ci tali bi ñu ngi ko liggéeyee ci euh, condition yoo xamante ni si ni yu yaatu la ndax tali bi waroon naa doon juróom-ñaari mètre waaye def nañ ko ci fukki mètre ci bi ñu ko defee ci yaatuwaay fukki mètre def nañ ko fondation boo xamante ni dañ ko décapé décapage bu baax def fondation bu dëgër ñi nga xamante ñooy suñu équipe la bay bi ñu ba def seen i tas gis nañ ni résultat yi wax dëgg yàlla macha allah ñu doog a nag jublu ci bicouche bi bicouche bi biñ ci jubloo ba toll ci phase bi nga xamante ni fi lañ toll ci lañ indee beneen équipe bi nga xamante ni ñooñu la ñu woowee équipe noire moment bii nii équipe noire boo dee xool ci tronçon bii nu nekk dem nañ ci à une de 80 pour cent normalement d'ici deux jours tali bi nañ ko livrer carrément lépp ak ñaari fan bu soobee yàlla tali bi nañ ko livrer ñu ciy sant nag sant bu baax a baax te xam ni eh, du sunu jàmbaar du sunu dara waaye mbooloo mee ci jàpp ak ndimbalul bu baax a baax tronçon bi nag mi ngi nekk un kilomètre deux cent cinquante kilomètre ak ñeent fu euh, ak ñeent ak ñaar téeméeri mètre ak juróom fukk ci la tolluwaay tali bi toll wax dëgg yàlla ci kaw loola liggéey nañ ko ci anam yoo xamante ni mucc ayib la daal nga xamante ni si moo ne fa gënoon a sonal ci wàllu ndox mi avant nu koy liggéey danoo dem a dem ba xool ni dafa am guy gu fa nekkoon akub sën guy akub sën nag boo dee xool bu saxee ci yoon bu nekkee ci yoon dafa am noo ko façon li noo ko war a liggéey mooy dañ ko purger génn li nga xam ne moo ci nekk ci lu doonoon ci tilim tilim lépp lépp lépp ñu dindi ko bi ñu ko ci dindee xool nan matière bi nga xamante ni si ni bokk na ci gën a cher ci wàllu lii ñu koy wax tout venant ñu commandé ko fële ak sable boo xamante ni amul benn argile di ko ci def suñuy compacité ci kaw loolu bi ñu defee sable bi ba nga xamante ni si nabbaa ngi commencé li am na beneen matière bu nu lijjanti boo xam ne ci ndimbalul taalibe encore muy wax géotextile moom lañ ci lal tegaat ci tuubanaa bi ci kawam ba ci mu nekk ni daal taalibe am nañ ci yaakaar yoo xamante ni si ni wax dëgg yàlla macha allah ñun nag dañu wooye ñu war a jiitu ci dëkk bi dañoo xam ni li njëkk a jiital mooy sëriñ bi ndax lu nu am sëriñ bi la lu nu meli sëriñ bi la moo tax bi nu jiitalee ci wàllu liggéey benn amul wutaluñ ko waxtu. lii nag firnde la ndax ni ma ko doon waxee rek boo xam ne ëpp gu ñetti at wala ñeenti at tàmbali defari tëli maa ngi koy door ma a gis ci Sénégal daayira yëpp ay jàmbaar rek waaye lii moom ci yéen la jëkkee kon nag nañ xam ne la Serigne Chouaib bu Mbacké daa wax rek fa laa koy tëjee dafa am ku mos a bàyyi ko Touba boo dëkk mi ñàkk na ndox lool Serigne bi comme ni ma ko waxee rek. balaa ma sa ak kenn ki jikko ki jigi Tuubaa yi jëkk waxal mu ne ko naka sama dëkk bu tedd ba mu mbake ko ba dëkk dëkk baa ngi fa waaye ma ngi ñàkkum ndox lool sëriñ bi ne lool loolu dox na diir bu gàtt dana jeex mu ne ko Mbàkke xanaa loolu ku gudd fan du ko fekke ku gudd fan loolu du ko fekke mu ne ko ku gàtt fan du fekke dara ñu teg ci ay fan bu faatu kon sëriñ Tuubaa lépp lu ñaan suñu borom rek lu mu tëgg bëtam la ba may ko ko mu bind ko lii nag firnde la ci loolu kon nag ni ni ko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di seereele waxtu bu ne rek mooy ñaan ci Serigne Touba rek ngeen àgg fa ngeen jëm te dara bañ leen do ndax lii kat njariñul ñëpp la ñi ma nekkal ci biir oto bi kat wax naa leen neneen fii de ku fi jaar bu déggee ñu wax ci yeen ab safaan du ko mën a dégg boo yexee bu mënoon gàddu yo dóor la ko ndax loolu jëfa koy maye Cheikh Abdou Lahad Mbacké ne dadaa wax ne wax ak jëf li ko wutale mooy boo yend woon wax fii ba déwén ci ci néeg bu ci su bu ci suba saa bu ëllëgee ku fa ku fa jaar du xam ne ni jaaroon na fa waaye boo doon fii ab bant te samp ko fa ba ba téeméeri at li fi bant baa ku fa ñëw fekk fa kon jëf mooy mooy des lii nag jëf la kon nag yàlla na sax bu baax ba fa ngeen jëm rek ngeen àgg fa barke suñu ti te xam naa moo ci amit nag ndax moom kuy kuy xalaat danga xam ne Sëriñ Tuubaa nangu na ko ndax la Sëriñ Saliou daa wax ne lu fa xolub taalib yi jëm rek fa la xolub sëñ bi jëm te daayira bi xolub taalib yi Sëriñ Tuubaa yëpp ko nangu julli yi bëgg lu baax sax nangu nañ ko kon nag tawfeex rek la nga ñaanal ñu daal kattan ak gu wér ba pësteef bi nga xam ne sëñ Abibou mii ko jiite mi ngi koy doxee nga ñaanal ñun ñun taalibe yëpp ñu mën ko lu ñu mën lu mu wàq ñu suul ko ndax dab ko moom du yomb ci jub ak pësteefu waaw moom moom dab ko moom du yomb <laughs> waaye ni nga xam ne daal nga ñaanal ñu ba lu fu mu jaar fu ñu ji ni mu jiito daal ñu mën a topp ci kawam ci pësteef bi ba li ngeen bëgg ci dëkk bi yëpp suñ borom jagleel ñu ñu ko ñu def ko ci nga ndax am ci ngërëmal sëñ Tuubaa إلى سواك هنا ثم خدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الواب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الوسيل وأنت عندي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت عندي فلا مدافع يا يا أنت الجلال الواسع وارتع بي فلا أناسى يا رب أنت سلمي الواحد وأنت حسبي فلا أكابد waaw ñu ngi fii ci euh, site bi nga xamante ni mooy 30 bi jëm saxaw ga tawféex nag am na ci ndax euh, euh, fii ñu toll nii ñu ngi njëkk ci 30 bi nga xam ne mooy 30 kër sëñ ñaan jóg foofu bañ fa demee doon na loo xamante bi ne ni lañ fa gis mooy ci finition la ñu nekk incha allahu rabbi bu soobee yàlla fii ak ñaari ñaari fan bu neexee yàlla ñu mën a jëfandikoo li nga xam ne moo fa nekkoon ci aw yoon bañ fa jógee it jaar nañ fi nga xamante bi ne ni mooy eh, eh, yoonu daaru yoonu daaru it la nga xamante ne moo fa lañ fa nekk mooy lépp loo xam ne muy fondation noppi nañ ko li ci des mooy couche de base bi bu ñu paree doog di def eh, nu mu tuddati bi couche bi la ca war a jëm yëpp yemb na te fi ñu toll ñu ngi ci te am na sax ay équipe yoo xam ne dañuy liggéey ci guddi gi Kër Baye Laat moom bu neexee yàlla fii ñaari fan incha allah ñu ubbi ko oto yi mun faa doon loo xamante ne luñ fay jaar la ndax la fa war a dem def nañ ko fa bañ fa jógee it jaar nañu ñaari pneu ñaari pneu it incha allah rek bu soobee yàlla lépp loo xamante ne couche Touba naa la équipe ba fa nekk ci guddi gi camion yaa ngi koy andi danañ ko noppi bu soobee yàlla ñu daal di koy imprégné mën a teg bi mën a bi couche fii nag saxaw gi moo ci doon piste bi nga xamante ne ni moo ci def ñaari kilomètre ak lu ak lu toftal tuuti moom fi ñu toll nii ñu koy gis nii commencé nañoo teg bii couche bi commencé nañ cee teg bii couche soobee yàlla loolu moo doon li nga xamante bi ne ni moom lañ doon def ci euh, visite tey bi structure bi nag bi nga xam ne moom lañ ci def dafa doon boo xamante bi ne ni sëriñ bi moom lu ñu koy defal dañ koy defal la gën li gën mooy doon li nga xamante bi ne ni moom lañ fi def te it bu neexee yàlla incha allah am na ci yeneen ouvrage yoo xamante bi ne ni bu ñu màggalee ba noppi bu soobee yàlla day continuer te du tere que ni nit ñi mën a jëfandikoo yoon yooyu li ci jëm ci yeneen assainissement yi tamit lu ci jëm ci wàllu chel ba loolu ña nga cay nekk di nekk ci ay raccordement bu soobee yàlla suba ak gannaaw suba ci li ñuy euh, ci ci ci li ñuy euh, def loo xamante ne ay nettoyage la ngir mën a doon loo xam ne dañuy libérer yoon yi ak yeneen yoo xamante ne moo ci nekk. liggéey biit ni nga xam ne noonu lañ ko defee mooy que ni am na kuréel goo xamante bi ne dafa doon benn comité boo xam ne Touba ca kanam da koo taxawal. mu nekk ay boroomi xam-xam ñu daje fa lépp loo xam ne dañ koy def ñu doon loo xam ne ay étude la ñu teg ko ci loo xamante bi ne ni ci ah, xam lay nekk pour mën ko am pour jëfandikoo ko fi ñuy wax ak yéen am na benn bureau de contrôle boo xam ne bureau de contrôle externe la moom mooy dikk di saytu loolu terewul it Touba ca kanam am na bureau de contrôle am boo xam ne mi ngi ci biir di saytu loolu am ci boroomi te bureau de contrôle externe bu dikkee li ñuy def da koy saytu pour mën cee def ay rapport pour mën a xam ndax li ñuy def méngoo na ak charte yi nga xamante bi ne ni ci la ñuy am pour que ni ah, def ko ci loolu ci la euh, liggéey bi euh, toll fii lañ ci toll fi ñu toll. comme ak jàppaleem ci liggéeyu Touba ci kanam ak yitte ju mu ko jox ak yëg ak bàyyi xel kon sëñ bi nga nuyul sëriñ bi te santal na ko bu baax ne ko sëriñ Habib mbooloo mépp ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ak yëg gi ak yitte ji sëriñ bi waxit ne naa ko yëkkati lay kàddu yu cant jëmee ko ci Cheikh Mamadou Bachir mii ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci léggéey bi ndax jéegoom yii day wane ne liñ koy saytuloo itteel na ko ndax njëkk ko def tey ba mu ñuy doog a tàmbali li ñuy a tàmbali liggéey bi defoon na lii ñëw wisit sànce yi te jii it li muy xat-xat ci màggal gi waajtaay wi teewul mu bàyyiwaat ay itteem donte ay itte yu ba ngeen koy xaaree gan ngir ñëw ngir wisit sànce yi xool liggéey fi mu toll loolu nag day tegtale ne liggéey bi itteel na ko te bàyyi na ko xel kon sëñ bi bu nee na mi ngi koy sant bu baax di sant mboolem waa Touba kanam gépp nag ak mboolem ñu jàpp ci liggéey bi ak wet guñ ci mën a jàppe waaye leen xam te man koo seere mooy liggéey bi ñu ko dénk daal fonk na ko bàyyi na ko itteel na ko ba weeru safar yu daataan teew la ko tàmbali woon bàyyi ay itteem yëpp di yendu ko sëñ Tuubaa ba guddi loolu nag bàyyi xel liggéey bi munu ko wees te noonu la bàyyi xel liggéey bi dëkk bépp kon ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi Touba ci kanam it mi ngi ciy jàpp bu baax ci wet yëpp di leen jàppale ñu ngi koy sant bu baax di sant it monsieur le maire mu ànd Abdou Lahad Ka moom it wax dëgg yàlla mm, mi ñu ngi koy sant bu baax ndax ànd na ak Touba ci kanam liggéey bi ni mu ko waxee sànq fee bi muy wax ne moom euh, kenn la ci mbooloo mi maam ak Touba ci kanam la loolu itam da koy jëfee ndax lépp lu Touba ci kanam woote dana wuy si te dana alalam def ca kon moom it ñu ngi koy sant bu baax di xam la lañ ko waxoon Touba ci moom ak maire bi mënuñoo ñàkk ànd ndax dañoo bokk benn tool bu ñuy xëy di ci liggéey ginnaaw dañoo bokk benn tool nag faaw ñu bokk tool moom ñoo kee dal ci waawee kee dal ci waawee waaye mënuñoo ñàkk bokk xëy ci tool bi kon mënuñoo tàqali ko kon noonu dong la demee maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat